mbokk yi ginnaaw buñ sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy def rek ci bokk di nafaraat ak bokk di fàttaliku ñu ajuma ji weesu ñu ngi waxtaane woon lu jëm ci aj ak farata gi nga xam ne ak ak farataam ak ak ki ñi nga ak ki nga xam ne mooy ki war a aj maanaam ñu ngi waxtaane woon aj ak am solo gi nga xam ne moom la am solo moom la aj am solo ak farata gi nga xam ne moom la nekk farata ci jullit boo xam ne da am mën na ko te war koo def ginnaaw njëkk ñu ñu tàmbali waxtaan wi nag ñi ngi sant suñu borom di ko tàllal suñuy loxo di ko ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kattan mooy borom man Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa tey taxawee lislaam suñ borom gën koo dëgëral gën koo kattanal gën koo man ta fànqal ko lépp loo xam ne mooy am ndog wala pakk ba li nga xam ne yéene na koo def ci lislaam mu def ko ni nga xam ni la ko yéenee te ñu ànd koog moom te daje ceeg payug suñ borom ni nga xam ne nu moo nu kawe suñ jot di di ko ñaanal itam képp koo xam ne yaa ngi taxawal lislaam suñu borom jox la kattan jox la man musal la ci ndog yeeg pakk yi ba li nga xam ne yéene ngi ko ci lislaam nga def ko nu kawe suñu jot nu kawe si nga defee ko nu kawe suñu njott ñun ñëpp loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal delluwaat di ko tàllal suñu loxo itam di ko ñaan moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy boroom sañ-sañ lii nga xam ne moo nu jaaxal te nga xam ne mi ngi bëgg yàgg ak ñun moom te moom képp moo ko fi mën a dindi yàlla na ko yàlla nañu ko fi dindil ci dindi ci àdduna sépp ba mu jeex fi tàkk te loolu suñ borom mën na ko jàpp na yàlla nañu ko defal suñ yàlla nañ ko def yàlla nañ ko suñ borom defal ginnaaw loolu nag li nga xam ne moom lañ bëgg waxtaane tey mooy aj moomu nga xam ne waxoon nañu am solo gi nga xam ne moom la am solo waxoon nañ itam ne farata la ndax bokk na ci lenn ponk lislaam kon ndax aj moomu képp koo xam ne man nga ko rek dalaa daa dalaa daal di war ca saasa wala man nga koo yeexe ba jëmmi jamono nga def ko loolu nag am na ñaari wax wax ju njëkk ji mooy képp koo xam ne aj war na la te nga man ko mën nga koo yeexe as diggante so def ko waaye am na ñoo xam ne dañoo wax ne sañoo koo yeexe ñi nga xam ne dañoo wax ne sañ nga koo yeexe as diggante mooy dañoo tegtaloo ci li nga xam ne moom la yarante bi sallallahu alayhi wa sallam def ndax xam nañ ne aj ñi ngi ko farataal ci ginnaaw ci atum juróom benn juróom benn at ginnaaw gàddaayu ginnaaw gàddaay gi ci lañ ko farataal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi aj ginnaaw fukki at ginnaaw gàddaay gi kon toog na ay as ndiggante soog koo def ñu xam ne nag kon bu fekkoon ne lu war na ci boo ko mënee ca saasa nga def ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko yeexe ba fukki ba bàyyi bàyyi mu wat mu war ci juróom-benni at juróom-benni at mu bàyyi ba fukki at mu di ko soog a def loolu ñooñu ci lañ tegtaloo ba wax ne kon ma man ngaa am man-manu aj ba noppi yéexe ko te yéexe googee du bakkaar du la ca topp ndax di ko yonent bi sallallahu alayhi wa def ñeneen ñi nag ni wax ni ñu wax ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñu wax loolu la muy ki nga xam ne mooy suñ moom la ñuy topp am ngërëm muy say muy imam Malik moom wax di mu wax mooy dafa wax ne aj moom dalay daal di war ca saasa saa yow ko banee rek amul loo cay néggandiku wala loo cay xaar da ko war a def ci waxtu woowa li foo mu moom it fi mu tegtaloo mooy ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne ibnu abbas moo ko nettali ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne bëgg nga aj muy am nga loo mën a ajee te te te war a aj bi nga war a def mooy da nga war a gaaw def ko ndax kat man ngaa feebar mën ngaa am gàllankoor ci sag dem man man la nga yoroon itam soxla mën na koo yóbbu ba dootoo ko ba doo mën a aj kon bu fekkee ne aj war na la rek da nga ko war a daal def ci yon ci ci saasa ñi nga xam ne nag ñoo waxoon ne aj sañ nga koo yeexee ndax li ko yonent bi sa alayhi wa sallam wax ji nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ne da ko wax rek ngir bëgg soññe ci képp koo xam ne mën ngaa aj nga góorgóorlu daaw gaaw gaaw ko def balaa ay gàllankoor di jëw loolu rek moo tax mu def ko ñu xam ne nag aj moom mu ngi war ci ab jullit ni ngi ko waxe woon ci àjjuma ji weesu na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee ne ko jëf yi lan moo ci gën dafa waxoon ne bi ci njëkk mooy nga gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wa ba noppi nag soog a def jëf yi nga xam ne moom la la lislaam waral ci yow nga soog a mën a am jëf ju baax mu mel ni kon li nga xam ne moo xew ci àdduna si ci ci doomu aadama yi muy li ñuy tuddee volontariat wala li ñuy tuddee stage nga xam ne benn benn lay jël doonut ne dañ laa dañ laa dañ laa defal contrat waaye dañ laa wax rek mën ngaa liggéey mën ngaa liggéey googee loolu lislaam moom jàppewul ne jëf noonu la war a demee li mu defee mooy li mu jàpp mooy képp koo xam ne ñu ngi lay jël ngay stage wala nga xam ne yaa ngi dañ laa jël ngay ngay volontaire day war a fekk ne am nga contrat ci fa ngay liggéeyee waaye waroo ñëw rek ñu daal na la liggéeyal te amut benn gàll amul benn àq boo xam ne war nañ ko war a war nañ ko war warul ci yow mu mel lislaam ko dafa doon koo xam dafa doon loo xam ne bëggut kenn kuy jëf ci moom te fekk te jëf ji doon loo xam ne da koy def rek da doo ci am dara daa bëgg lépp looy def na ko teg fu wóor ba nga xam ne ka lay jëflu dana xam ne amal na la àq ba war laa fay loolu nag mu doon lu am solo loo xam ne jàggat bu nga xam ne warees na koo jàggate ci lislaam muy loolu loo xam ne lu ñu wat bàyyi xel la ndax xam nañ ne bokkut ak nga xam ne loolu bokkut ak xam ne mooy doxee ci àdduna si ndax da gis koo xam ne mën naa nekk volontaire wala koo xam ne dañ koo jël stage mën naa nekk ñett ba naa def ñetti at wala juróomi at te duñ ko fay dara waaye nag loolu lislaam moom nanguwu ko daa bëgg ki nga xam ne moom nga jël ngir muy stage ci yow wala mu volontaire ci yow na doon koo xam ne engage jën nga engagement ci moom ci jëfal ko contrat ba noppi loolu mooy li nga xam ne moom la lislaam nangu ñu xam ne nag aj mu ngi war ci képp koo xam ne jullit la muy kon ni ñu ko waxee woon ndax kon dafa mel ni li ñu waxoon léegi ne jul lislaam du nangu kenn ku ci jëf te fekkut ne jël nga am nga contrat l'islam suñ borom ba noppi kon mu mel ni itam jëf ju mu mën a doon rek balañ ko waral ci ci nit ki dafay doon koo xam ne jën na engagement ci nagoo doon ab jullit ba noppi ñu soo ko waral ci moom ndax lislaam bëggut kenn kuy jëf te liggéey jëf mën nga caa bañ a am njariñ day bëgg lépp looy jëf rek njariñ na la ca fekk loolu moo tax mu doon lu am solo kon mu képp koo xam ne jullit nga am xel ba noppi itam masuur te man a aji te moom alal ja nga xam ne moom ngay ajee faw nga moom alal ji nga xam ne moom ngay ajee waaye boo ko moomut day mel ni kon boo ca ajee itam aj ga doonut loo xam ne lu suñ borom nangu la faw day doon alal ja nga xam ne moom ngay aje ji na doon lu la jox may la ko wala nga nga wala nga fàggul ko sa bopp waaye mënoo jël rek alal ju mën a doon dem aji ji te fekk na moomoo ko wala da nga ko amee baaxul na mu war a am na mu war a amee loolu nag ñu xam ne lislaam bi muy bi muy farataal si ñun aj ak yi nga xam ne ñooy farata yi nga xam ne mënoo farataal si ñun yëpp muy julleeg woor ak nata asakaak yëpp dafa bëgg rek relation bi nga xam ne moo war a nekk ci diggante jullit ñi na doon relation boo xam ne bu dëgër la bu tegee foo xam ne itam fu fa mu war a tege la loola mooy tax ba aj moo tax ba sàkkal nañu waxtu woo xam ne danañ ci mën a daje ci bis bu nekk muy julli yi juróom ñi de ñu bokk koñ ñëpp war nañoo mën a daje ci jàkka ja ba jullee fa bu ko defee xamante ga am la nga xam ne moo nekk seen diggante ci gàllan ci ay gàllankoor yoo xam ne am na ñenn ñaa nga ca ñe ñen nga xam ne ñoom yàlla dimbale leen ñu xam loola ba mën leen caa jàppale muy kon julli yi juróom moom da koo def ngir ñi nga xam ne ñoo bokk benn gox waaye ajjuma nag da koo def mu mel ni comme dafa bokk ñi nga xam ne dañoo bokk julli dañoo bokk eh, maanaam dëkk bi ñëpp ñoom la boole ñu war a daje ñoom itam di war a waxtaan di xam li liñ war a jàppalante di xam na nañ war a dimbalante di xam liñ sëq ginnaaw boobu itam mu waraata mu defaat farata joo xam ne moom da koo def ngir àdduna sépp bokk ko ngir mën cee daje ngir man cee mën a waxtaan mën a xam li nga xam ne moom lañ war a mën a jàppalante mën a xam itam nan lañ war a dimbalante na xam itam li nga xam ne mooy war seen diggante nan lañ ci war a taxawee loola nag mooy aj kon mu mel ni suñ borom faggu li nga li nga xam ne moom la ñu wax ne innamal mu'minuuna ixwa ba mu ko waxee itam bëggut rek ñu yem ci yëg yëg-yëg bi waaye dafa bëgg yëg-yëg boobu am jëf ju ca topp moo tax mu mu wax ne fa aslihu bayna axawaykum loolu itam moo tax ba tey itam xamante gi nga xam ne moom bëgg ñu xamante ko ñi nga xam ne ñoo bokk benn quartier bi wala ñoo bokk benn koñ bi ñëw ak ñi nga xam ne ñoo bokk benn dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo bokk adduna sépp di xamante googu nga xam ne moom la bëgg ñu xamante ko yëgante ko loola daa bëgg mu doon loo xam ne dañ koy jariñoo ci xam ne ñun ñii ñoo bokk lépp kon lenn ku dal kenn ku ne ci ñun lu ko dal rek sa morom la dal kenn ku nekk ci ñun itam lay sa aajo mooy aajo yi keneen ka ca des bu ko defee ñu mën cee bokk taxawandoo mën cee bokk xalaatandoo ndax xam ne suñ bo li li daa am lu ñu boole te loolu ñu boole nag daa am da dafa laaj jëf waaye doonut loo ne dañ ko war a dafa war a doon ab yëg-yëg rek kese loolu nag ñu gën koo mën a fàttalikoo ci bi nga xamee ne ñi ngi taxaw arafa ñu xam ne ñun ñëpp ay dem taxawandoo ci benn bis ñun ñëpp ay dem taxawandoo ci benn waxtu loolu nag lim nuy liñ ci war a jëlee mooy xam ne nii nga xam ne ni lañ bokkee benn bis daje bokk yitam benn waxtu daje noonu la ñuy noonu dañ la ñuy daje noonu la ñuy taxawee ëllëg ci kanam suñu borom te suñ borom bu ëllëgee buñu taxawee ci kanam kat ñu laaj loolee ma leen boole woon ngeen séq ko ndax yéen a nga ci doon dox na ngeen ci war a doxe wala doxewu leen ci ni ngeen war a doxe loolu itam mu doon loo xam ne lu bàyyi xel la ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam di ñu yëgal ne joon jullit rek wax ne jullit laa ñi samay mbokk le nga yem ca loola looy na loolu doyut da ngaa war a doon koo xam ne da am yëg-yëg boo xam ne lépp loo xam ne mooy itay jullit ñi nga yëg ne danga nga caa war a taxaw ni nga xam ne nii nga ni ni ni nga yëg ni ngay ni nga war taxawee ci sa soxlay bopp ndax nee na képp koo xam ne yaa ngi jàpp ne ab jullit nga kese te lay xew ci say mbokk jullit yëgoo ko bàyyi woo ko xel jéemoo ca dara nee na dafay mel ni bu ñu la waxee ne ab jullit nga tam am na lu des kon suñ borom mi nga xam ne moo nu mën a jàppale te moo nu mën a dimbale ba li nga xam ne moom la ñu sant ñu mën koo dox ni nga xam ni la ko bëgg ñu doxee ko yàlla nañu jàppaleel boppam dimbaleel nu boppam bañ xam li nga xam ne moom lañ séq te xam xam itam nan lañ ca war a doxe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 ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أقول هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم